ne dana war a yóbbu àddiya dana war a màggal ba tourné waat dese dara te ku ne xam na ni màggal gi nag daa jub si léegi nag euh, secret bi ma ciy joxe xam naa ni mën nañ koo wax ci màggal gi ndax màggal gi moo jub si mm-hmm. waaye xew woo mën a jub rek te bëgg koo jekku soo ko defee boo eggee ca xew ba di ko jekku moo xam ngàmm la walla muy màggal wala muy tabaski wala muy korte wala muy céet wala muy ngénte yow daal bu fekkee da ngaa jug xew woo xamante ne xewu rëy la. Hmm. te lii la ci war bari te la yàlla xam doy na nga jaaxle ci lool soo ko dee liggéey sëg suba bala ngaa génn bu xew wa jotee di nga xew ba desal lu ëpp li nga finance ci xew bi mooy mu inna lil muttaqina mafasan mu nga ca surtout nabay xamayata la nekk. inna lil muttaqina mafaasan inna lil muttaqina mafaasan nga di ko werd mille boo xëyee ak salaat gi allahuma salli alal mawsuufi bil joodi wal karam moom it nga werd ko mille doo ko dem lijjanti li nga lijjanti balaa xewee ñëw il faut di nga am li nga loo xewe ba desal am na solo ma baamtuwaat ko képp ku jub xew wu rëy yoroo loo xewe wala nga jub màggal bëgg màggal gi neex inna lil muttaqina mafasan da nga koy weer di ak salaatu bi allahumma salli alal mawsuufi bil juudi wal karam miil nga ñaan suñu borom bala ngay egg ci xew bi suñu borom dina defal ci xew bi lu kawe sa njort mm-hmm. loolu mooy bi ci njëkk beneen bi ci topp ci wàllu lu yombal xaalis la xaalis moom boo ko bëggee il faut ngay nangoo càngat ku di ko gën a fonk rek moo lay gën a ibbeeku ci côté bi lii nag moom yii ma ciy bëgg a joxe képp koo xamante ne sa yaram amul benn gàllankoor boo ko jëfandikoo ku am xaalis nga am xaalis ku ñàkk xaalis di ko am waaw xam nga doomu aadama li koy tëj day bari ay xeeti cat ay def-def ay wàllu rab lu ne mën naa tëj nit ki bari na daal waaye bu fekkee amoo ci benn gàllankoor càngat yii may bëgg a joxe maanaam nit ki bu ko jëfandikoo bu amul benn gàllankoor dana ibbeeku euh, bi ci njëkk mooy suratul waqiatu da koy bind ba mu jeex isaa waqaatil waqiatu laysa li waqaatiha kaasibatun xaafidatun raafixatun isaa rujatul ar rajan wusat jibaalu bansan fa kaanat hawaan munbasan wa kun aswaajan salaasata fa ashaabul maymanati ma ashaabul maymanati wa ashaabul masamati ma ashaabul masamati wa saabiquna saabiquna ulaika al muxarabuuna fi jannati nahimin sullatun min lawalina wa sullatun min laaxirin wa asaabu simali ba simali ba ba egsi ci wa talxin man doodin wa talxin soo koy bind boo ñëwee ba ci wa talxin man doodin nga baamtu ko 243 maanaam soo koy bind ba egsi ci wa talxin man doodin koy bindal da koy wax mu baamtu ko wa talxin man doodin wa talxin man doodin ba muy nga doog nga doogee saar wi mm. soo paree nga def ko saafara sangoo ko juróom-ñaari fan wala wala wala trois jours trois jours nga koy sangoo wala sept jours chaque fajar maa ngi giñ ci yàlla dana wuute di nga wuute ak ba nga ko defagul. am na solo ndax nit ki bu yokkoo ay saa dana xam bu wàññi koo dana xam mais càngat bii boo ko defee di nga gis résultat ci dama la wax bii nag. Hmm. li nu jub màggal gi moo tax ma koy joxe xam naa su ma ko joxee doo diggaat beneen xam-xam joxe ko. ndax du secret sax bu ñuy joxe ci télé mais jëmmi sëñ Tuubaa tax ma koy joxe ci màggal gi. Mm-hmm. ndax damaa bëgg ñëpp je ñëpp jekku ko waaw. su ma ko waxee fii ku ma ci laajal dara du ma la du ma la ku nan ma déglu bu baax du ko du ko baax. ak dégloo ak dégloo. waaw sóoratu yaasin mooy xolu alxuraan alxuraan su doonoon jëmm yaasin mooy xol bi. léegi nag liggéey bi boo koy liggéey il faut nga may nga am temps nga am jotam. Mm-hmm. parce que semaine leen koy liggéey kon du liggéey bu ndaw liggéeyu sëriñ la waaye semaine bi boo bàyyee lépp def lii ma la wax boo paree lépp la rawoon ci semaine bi di nga ko rabbu te boo ko dee liggéey luy jaay ak lu mu seer seer waxaaleel bu paree di nga fay surtout yaasin da nga koy jàng bisu alxamis 61 juróom benn fukki yoon ak benn ci benn jotaay soo ko jàngee ba noppi nga sikkar aaya bi ci biir la nekk wasalanaa lahum fa minha rakubuhum wa minha yakuluna xëcc benn per wasalanaa lahum fa minha rakubuhum wa minha yakuluna di ko def ba muy 66 mm-hmm. léegi liggéey bi dafa am rawxaan rawxaan bi boo paree da nga koy sikkar moom it 313 mooy li mu jëy sun yaa mustakaka yaa ilu yaa fëkkanoo si mooy turu rawaxaan bi yaa mustakaka yaa ilu yaa fëkkanoosi nga sikkor ko 313 léegi jour bu njëkk bi muy jeudi bu njëkk bi ngay jàng 61 yaasin yi yeneen jour yi ci des yëpp doo jàng yaasin wasala naa lu fu mu naa rokku boo mi naa yokkul woon rek ngay sikkar 66 ak yaa mustakaka yaa ilu yaa fëkkanoosin 313 ngay def noonu di def noonu di def noonu di sikkar loolu di sikkar loolu ba jeudi bi dellusiwaat léegi balaa jeudi bee rawxaan bi di nga ko gis hmm. waaye ci nelaw nga koy gisee yaa mustakaka yaa ilu yaa fëkkanoosit balaa semaine bi delsi balaa jeudi bi di delsiwaat di nga tëdd mu dikkale ci ay nelaw te bu la dikkee ci nelaw soxna ay danaa la laaj li ngay saraxe daw nelaw yu yàqu nag <laughs> moom bu ñëwee xam nga xam nga xam nga ban information la la indi eh. rawaxaan bu la feeñoo ci nelaw bu subaa na nga saraxe nangam ndax nit ku nekk ak saraxam moom moo lay wax moo lay wax sarax bi nga war a génn lim la wax nag di la saraxe ko comme yaa ngi koy liggéey te eggagoo ci jeudi boo ko amul sax boo xëyee leb ko nga saraxe ko jeudi bi bu dellusee jeudi bi nga ko tàmbalee ngay liggéey lii bu mu dellusi wallaay asim ku am xaalis nga am xaalis ku ñàkk xaalis nga am xaalis. am na solo dañuy teg foofu suñu baaraam. di nga ibbeeku ci côté yëpp. Mm. waaw loolu moom man naa ko wax. am na solo màggal gi ñëwagul des na. yi mm. ci des dañ koy dee ci bés mercredi. Ah, léegi nag man maa ngi koy wax képp koo xamante ne da koy def maanaam ñetti parfum yi da koy xeeñoo. ban ak ban. miski. miski bu amul miski mu am saxfaraan. bu amul saxfaraan mu am royal bukki am miskin ak. safaraan ak ak royal bouquet. jërëjëf ñu bàyyi la nga tàggatoo joxe numéro bi bu ko defee ñu jotaay bi ndax journaliste yi ñu ngi en place dañu war a def le flash d'information. waaw képp koo xamante ne rek euh, dese nga cee am lu la leer dañuy woo ci 78 530 69 81 wala ngay li si xaarlu say mbir ba nga xam sa sa tolluwaay kon maa ngi ziare ñëpp ñëpp ñëpp di jaajëfal ñëpp di jaajëfal waa palaato bi. jërëjëf fi mu nii Sénégal Afrique. àdduna wërgal këpp yow rek la ñuy toog. yow rek yow donc. yow képp jërëjëf. Kena merci beaucoup. nee naa la sa forno. ah damaa xam ne nelaw yooyu dana yàqu de. raw xaan bu ñëw rek ah, ne la kay naa dootoo nelawati jërëjëf rek <laughs> mi ngi noonu Aïcha merci beaucoup c'est un plaisir euh, indil leen rek li ngeen xam ne tey mooy gox goxlu di wax merci beaucoup euh, déjà Flavor pour ce maquillage nee naa leen maquillage bi tournage u démb la 3 heures du matin la pare euh, donc voilà mu ñëwaat plateau tey di la remercier bu baax a baax sama kanam yaa ko miin te voilà ba tey foiré wu ma donc mi ngi noonu et merci beaucoup à Toro le grand réalisateur leen jox dig daje ba suba incha ci yeneen soin de vous et bonne journée à vous. merci Pape jaajëf. Mohamed Baal ma merci. à demain di remercier Bamba Diop pour la tenue mu ngi fële ca Sandaga ah donc koy remercier bu baax a baax ah, ci confiance bi 77 mm. 092. 51 euh, 13 merci beaucoup Ahmadou Bamba. merci à vous merci à toute l'équipe jaajëfal naa leen Mouhamed ma delloo la sa antenne 10h ngeen am seen flash d'information euh, juste après ça à 11h ngeen ànd ak Sista Maria borom émission bu mag bi la mi-journée l'avant-première mu ànd ceeg Dira ak ay chroniqueur ak ay ganam ñu gën a yaatal actualité bi quant à l'équipe matinale ñun ñu ngi leen jox di daje bu ëllëg incha allah.